californement battu et violé Adja Thiaré Diaw mooy ki yëg di kàddu yi ni mel Adja Thiaré Diaw xale bu jigéen bi nga xam ne moo tukkal àddunay Californie jamono jile moom Adja Thiaré Diaw génn na daal di wax ne Californie daf ma doon jéem a violé futti na ma dóor na ma def na ma lu nekk te jamono ba ma koy def itamit nag li ma ci gën a metti te gën ma cee naqare moom moo di benn ab gardien ma nga taxawoon di ñu xool di ñu seetaan te yëg na li xew mu ngi gis ne ñu ngi may duma jéemu cee dugg jéemu maa àtte jéemu maa dimbali te nag sàkku naa ci moom yuuxu naa lu bare bare ne ko wool ma sama yaay waaye faale ma dafa seleng lu giñ daan dégg ci jigéen ñi dégg rek laa ca amoon musuma koo gis ba ciy teg sama gët mbaa ma koy dund bi yoon nag man la yat bi dal ci sama kaw yëf yi ci sama kaw la tàbbi man sama jëmi bopp man la ñu violé waaye nag duma ko bàyyee noonu mu sedd danaa ko yóbbu ci loxo yoon ba tax ne information yi nga xam ne jot nañu ko jot ci ginnaaw Kaliphone ci boppam yoon teg na ko lox moom kalifon ginnaaw bi nga xam ne gars yi dañ koy tuddee ancien insulteur de la république maanaam ki nga xam ne da daan saaga président Macky Sall léegi nag ancien la ca maanaam saagaatu ko woon dafa dem ba nekkaat ci wetu président moom Kaliphone jamono jile guddi setagul ci la nekk gannaaw ba nga xamee ne ko ab viol ba noppi itam daal di ko yóbbu ci loxo yoon ci Californie ci gàttal jël nañ ko jébbal ko yoon jébbalu naa ci liir bi soog a juddu tey ki ko def moom moo di Umaro jaamub Cheikh Béthio Thioune moom Umaro ci ngéntal Seydina Thioune li lee moom mi nga xam ne jur na ab doom bu góor tuddee ko Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke Thioune Umaro ci kaddu yi nga xam ne moom la doon yëkkati sant na ko gërëm na ko ba noppi itam xamal ko ne ko nag liir bii di soog a juddu tey duma la bàyyi ba nga dem may soog a jébbalu ci moom ndaxte man bi may jébbalu ci yow sa bàyyi Cheikh Béthio ci cuun mu ngi doon dund te bàyyi woon na ma joxoon na ma ndigal ma jébbalu ci yow kon nag bis bu ma namee bàyyi ba nga génn àdduna woon ma ginnaaw mooy soog a jébbalu ci sa loolee du ko def man léegi-léegi ci jotaay bi fii ñu taxaw ni laa leen di xamal ni yéen mbooloo mi ngeen seede ma jébbalu naa man Umaro jébbal naa sama bopp àddina ak ak ki nga xam ne moo di Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke cuun mi ñu tudd tey ji le moom mi nga xam ne fajarug 18 safar ci la judd moom Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke cuun jox naa ko sama bopp gi nga xam ne ci fajar jëbbal naa ko sama bopp ne leen biir léegi ne benn fan yi safar saa bu terewtee danaa ko joxal bis mu nekk 10 000 francs ba fukki fan ak juróom-ñetti ci weeru safar te weer wu nekk itam maa ko yoreel 128 000 maanaam dinaa ko joxal ñaar junni ak lu topp moom Umaro loolee la defal ki nga xam ne moo di sëriñam boobule nee na fii ak maa ngi dund duma ko dakkal dama koy def sama ngiruk dund ba keroog may génn àdduna mbaa ma woon ko ginnaaw waaye ak lu mën a xew itam moom Umaro jëbbal na bopp ki nga xam ne moo di liir bi doon soogu juddu te dawu ci dara dawu ma dara Wally Ballago Seck ak Samba Peuzzi noonu la ñu tuddee seen clip ba nga xam ne jamono jile ma ngay daw ci youtube ba clip ba ak nañu ko defaree morceau ba ak son bañ ci utiliser tama ba di rëkk ci suuf Wally Ballago Seck ak Samba Peuzzi seen way boobu la mën naa nekk type boo xam ne dana jaayu ci àdduna wërngal këpp ndaxte way la boo xam ne def nañ ca lañ ca war a def liggéey ci lañ ca war a liggéey ba noppi itam clip ba jaar ci yoon ba tax na jamono jile ma nga ci youtube ba ba ñu ko génnee ak léegi matagul ay waxtu Omaro moom ci boppam démb moo génnal boppam daal di Balago Seck dana génne benn clip boo xam ne moom ak rakam Samba Peuzzi ñoo ciy àndandoo te clip boobule mooy dawuñu dara clip boobule nag man Omaro li may ci joxe comme ndigal moom moo di ne képp koo xam ne bëgg Wally Balago Seck képp koo xam ne itam sopp nga Wally te di ko topp képp koo xam ne itam musique daf laa yitteel damay ñaan ci ñëpp daal daw seetaani clip boobule un million de vues laa soxla balaa vingt-quatre heures yi di mat moom ma di Omaro Fall la mu rëkk ci Barthélemy Dias kàddoom ya mu yëkkati kàddu yi la yoo xam ne kàddu yi ñagas la Babacar Fall ci RFM matin ga mu toog fa la daal di yàq musiba ak mbelengaan ki nga xam ne moo di Barthélemy Dias mer gi mu ko mere sàññ gi mu amee ci moom moom Babacar Fall nga réew a xamal leen ni leen yéen waa TFM gudd Walf Futurs Médias nekku leen groupe boo xam ne da ngeen am objectif maanaam ci gàttal da ngeen a daw làqu ci ginnaaw nguurug Sénégal di jëf-jëf joo xam ne ak a wax wax joo xam ne leer na nañ ne yoonu askan bi nekku ci intérêt yi askan bi nekku ci seenu intérêt ci nekk kàddu yooyu nga xam ne moom la baax te Barthélémy Dias yëkkat yi jagleel ko groupe Futurs Médias loolee moo génne sàññu Babacar Fall Babacar Fall RFM matin laata muy jeexal ci la ne man de maire bu Ndakaaru Njaay bi fen gi nga xam ne fenal na ko groupe Futurs Médias di baat bu ci nekk tey jii dinaa ko tontu dinaa leen xamal ni leen léegi nag dootuñu leen bàyyi bàyyi ngeen ñuy yekk musiba ak mbelengaan dootu ñu leen bàyyi ndaxte li nga fi def ci xeetu émission fii ci RFM def ko ci TFM kenn xamul nu mu toll kon nag yow Barthélémy Ngom baadoo la nga réew nga tey tamit nit ku mën a fen nga noonee lay yëkkatee ay kàddoom dal ci kawam ki ko avertiroon moom Barthélémy Dias moom moo di Cheikh As Barha borom ijaaba borom yàlla nañu yàlla may yàlla yàlla mara bi nga xam ne ñëpp ko xam fii ci Sénégal jotoon naa génn laata dara di xew xamal Barthélémy Dias ne ko yow ab kilifa nga dangaa war a wax dangaa war a waxi kilifa itam dangaa war a dox doxinu kilifa ndaxte nekkatoo benn ab xale nekkatoo xale ci géewu politique gi ndaxte buñ la joxee lu toll ni maire bu Ndakaaru Njaay jox la itam poste sub nga teewal askan bi ci Assemblée nationale na la leer nañu ne askan bi bàyyi nañu la xel jox nañu la nopp te itam jox nañu la bopp kon nag yow Barthélémy Dias man Cheikh Asbarham li ma lay wax mbaa boo ko moytuwul di nga fi mës a wax mbaa nga def fi loo xam ne luy toj aw penc la te coow daña la ca topp maanaam ci gàttal Cheikh As ba mu koy booba dara xewagul te na mu ko waxee noonee la amee Barthélémy Dias waxam jooju kenn ku ci nekk yaa ko ci yekk musiba ak mbelengaan Cheikh As Barham aartu woon na ko xamal ko ne ko te ngaa yem ci kudduñu roof la ci gayat maanaam ci gàttal Barthélémy Dias sa bopp Barthélémy Dias nekkal kilifa Barthélémy Dias xamal ki nga doon xam dayo bi la sénégalais yi teg yow fi la sénégalais yi teg dafa sori kon nag moytul yenn te moytu ñenn yi mbaa bare bari dana këpp ci sa kaw mbaa ko may itam lu bare bari ci coow dana agsi ci say tànk mu ngi ci tànki Macky Sall ki nguuram moom Bougane Gueye Dany jiital gëm sa bopp le Bougane Gueye Dany ci entretien exclusif bi nga xam ne moom la doon amal ci suñu naataangoo ya fare ca Seneweb Bougane Gueye ci la wax li nga xam ne moo di parcours bu gëm sa bopp bi parcours bu gëm sa bopp nee bu ñu koy natt bu ñu ko natt mukk ci mairie yu ñu jota am mbaa ay voix waaye nañu ko natt ci présidentielle yi ñu dëgmal ci kanam su boobaa la ñuy xam kan mooy Bougane Gueye Dany su boobaa la ñuy xam itam ñan ñooy gëm sa bopp su boobaa la xam xam ban liggéey la ñuy liggéey Bougane Gueye Dany nee na suñu programme bokk na ci fii ci Ndakaaru Njaay ko def jaayub yaama neex ni ñuy jëlee suufu si Ndakaaru Njaay ba ca des ñu bërëxal ko ci suufu suuf Bougane Gueye Dany nee na fii Ndakaaru Njaay Ndakaaru Njaay gii may àddoo ngeen may teewloo man Bougane Gueye Dany def naa samay recherche ba xam benn maire boo xam ne maire Benno Bokk Yaakaar la jël na benn hectare boo xam ne suuf su yaatoo yaatu la luwe ko waa Auchan tey tamit nag li leen te fay ko daanaka ñetti millions par weer boo ko xay xaymaa ci at la muy dugal ci million barewul i gafaka na fi foo xam ne fii ci biir ci nekk ñu ngi ko waroon a jaaye lu toll ci onze millions wala sept millions la ca topp koy jaayee mètre carré bu ci nekk onze mille francs loolee lépp man Bougane Gueye Dany jox naa maa ngi ci dossier boobu la maa ngi koy topp ba mu sës ndaxte suma leen waxal dara ñu génn di ko weddi lépp lu may wax dafa am ci preuve yu leer nañ yu may sukkandiku te bis bu ma demee ba gëstu ma ciy gëstu àgg dina janok taskatu xibaar yi leeral lépp benn par benn su boobaa sénégalais dinañ xam xunjuur gi ñu fi nekk te bis bu ñu doxee ba jot ci réew mi ñun waa gëm sa bopp lu ñuy njëkk a def mooy jéem a def ay audit audit yoo xam ne dana firndeel caxat-caxatee ak yàq gi ñu nekk ci suufu Sénégal rawatina fii ci Ndakaaru Njaay Mara waxatina Mara mu Serigne Sali la mu wax ci départuk Matar Ba gi dalul xelu sénégalais Mara Niass nee na demuk Matar Ba gi gënul ci Sénégal yànqoo ba jatar itam yóbbu gim ñu yóbbu coupe du monde loolee dalul suñum xel yoo xam ne ëllëg dañu naan ma wax nga lu dul dëgg man Mara Niass ma ci pexe aw ci benn yoon pexe boo xam ne gis naa ko ci mbaa ma mën ci dara bu ñu ma wootee itam bu ñu lijjanti fu ma nekk man Mara Niass jéemu ma cee def benn pexe ndaxte gisuma ko ci en tout daal li ma xam moo di moom ma moom Macky Sall képp ku ko seetal ba xamal ko ni ko génneel Matar Ba indi Yankooba mu ngi koy defloo erreur bu mag a mag Matar Ba moo gënoon ci ñu noon na koo bàyyi ba ñu dem Qatar ba ñëw mu soog a indi Yankooba waaye jamono ji mu indee ba baaxul gënul ci Sénégal waaye ak lu coow liy bare bari na ngeen xam ne ku gis nen ni nen a ngi le 29 septembre maa ngi ca Magic Land ànd ak Viviane la reine di Jolof Band premier octobre nag maa nga ca fa nga xam ne moo di King Fat Palace dîner bu mag ak les vingt deux ans du Jolof Band Viviane Chidid kii rëkkati na fu nooy moo tax ma ne la ku ma fa dëgg ne ma masta jërë ngeen jëf ba altine ak jàmm